Le eSport TV, merci encore, gars, de la confiance renouvelée. nous Merci de des likes, merci de vous aider, abonné. Merci également, gars, de baisser les commentaires. Un plaisir au nouveau chaque fois de partager des informations. Mbok Sénégalais, fait folle maintenir 14 régions du Sénégal. À nouveau le Cup, nous l'avons déjà fait. Nous sommes également à l'hôpital et sécurité de février. Nous sommes en train de faire des gam. Nous sommes en train de faire des aussi erreur judiciaire. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train gars, faire des choses. On avance ensemble dans la magie de eSport TV. L'actualité en continu actualité les gars nous e, faisons une yéene qui donc qui dit Edouard Diolko moom Mendy sur la liste de départ du côté de Chelsea Youssouf Badji de retour au championnat sénégalais également qui dit Pape Ousmane Sarro. mais là, tabou gars e, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure gars e, pour agrandir la famille sportive y a une actualité wax ci règle football wax ci histoire football wax également actualité sportive politique ak aussi jangat aussi histoire au Sénégal dem len abonné Baba Show lien bank ci kaw non ma def ah, donc dal di koy épingler ngeen abonné mais surtout di regarder vidéo yi gars yi boo abonné aussi da leen seetaan vidéo yi def li nga xam notification ay histoire la ñaari vidéo yi am solo yu may jox solo yu may def fofu insolite bi gars moy ñi nga xam wa Zamalek wa Zamalek ñom gars <laughs> ci Égypte pour wane dañu mer ab astuce lañ trouvé ñom li lañ defa dal <laughs> <laughs> lii lañ formé pour wan ne léegi dañoo mer ñoom nekkuñ foofu di sànni nekkuñ dara lii laa lañ def ay nit ñoo toog def ko pour wan dañoo mer wàllum basketball également sànq rek maa ngi wax naan Babacar Ndiaye dafa war a day teg leengeem jox ñeneen ñi nag waa port la waa port ñoom it ñoom dañu daal di ne ñoom ba saison bi commencé ba léegi kenn fayu leen seen xaalis ñoom nag ñi ngi war a jouer match boo xam bu ñu dóoree dem play off daal di grève à autonome de Dakar gars yi jeunes yi nag bokk nañ comme ay jeunes Sénégal yi am ñoo xam ne gars yi ñi ngeen gis ni fukki at ak juróom-ñett la am 18 ans kese lañ am ñëw tànn li nga xam mooy équipe nationale yi nekk ci Afrique donc fierté te ñoom ñëpp fu nekk dëkk bi nga nekkoon mënoon nga fa de jouer parce que ñi nga la doon woo di la def les yeux doux li nga xam nag mooy Footy Headlines nee na nag mayo bi mooy nekk maillot olympique lyonnais déwén ci li nga xam nag mooy donc championnat bu France gis ngeen ko ah mayo maillot Lyon bi donc gars yi temps yi daal ay rétro la ñu jël ci li nga xam mooy mayo yi daal di koy méngale euh, donc moderniser ko par rapport ak l'évolution vision football mais gars yi ki ngeen gis nii nag également ah <laughs> tagg Yafiko moo publier lii lii nag gis ngeen ah contre Bayern la woon temps mi ngi nekkoon Ajax gis ngeen kii di euh, Thomas Müller li mu ko def nii mu ne donc moom. <laughs> <laughs> photo bi marqué na ko parce que nee na geste bi moo garaaw quoi gis ngeen Thomas Müller li mu def dafa la aji bopp Tagliafico fu euh, gis ngeen aussi kii di Lionel Messi lii 2013 la woon ah contre nga xam mooy donc Real Betis gars yëpp ah, di daw si kii Lionel Messi am benn artiste bu ko jël daal di koy def nii gis ngeen ah Lionel Messi donc la Pulga donc toujours aimé du côté de l' Espagne toujours Espagne ki ngeen gis également ah donc kii nii mooy Just ah moom moo nekk euh, euh, président vice président bu Barça moom noo wax ne actuellement On confirmé na ne ñoom daal ils sont entrés en contact ak Lionel Messi pour daal di koy delloosi du côté du FC Barcelone ki nga xam ne également nag mooy papa Lionel Messi di José Messi nga xam ne moom ak kii di Laporta seen diggante dara taxul woon gars yi nag nee nañ temps yi juboo nañu ah ñu ngi waxtaan nànk-nànk pour xool aussi possibilité pour Lionel Messi ñëw Messi nag nee na dina xool choix yëpp laataa muy jël décision ndax day toog Paris Saint-Germain wala day dem foofu ca day dellu ca Barça wala day dem ca les ki nga xam ne également nag mooy donc ki ngeen gis nii di Mendy Mendy tamit ah Ferland mendi moom daal dafa blessé dina toogaat weer de jouer booy bi daal masa coona du du mën a Sénégal la ko teg quoi mais eh, moo tax gars yi booy tànn équipe nationale tànn équipe nationale boo xam boo fa demee dañuy ku neex ku daagu waaw ku ñu naan ku mu neex daagu fañ la nobee donc ma eh, ñi nag gars yi mooy waa Blues de Chelsea Blues de Chelsea moo nekk la seule équipe actuellement boo xam ne. góor ñi ak jigéen ñi ñi ngi joué li nga xam mooy toujours compétition européenne yi ci beneen tour bi ñii di jigéen ñi nag egg nañ demi finale ñii nag donc di euh, góor ñi ñi ngi ci huitième de finale yi donc loolu c'est une prouesse mais aussi wax ci ki nga xam ne mooy donc kii di Thiago Silva 38 ans la am kii nii gars yi pour un peu motiver leen ba mu amee 15 ans dafa def test ci quatre clubs ah ñëpp ñu daal di koy dàq moo dem nag bu muy joué milieu de terrain la woon après ñu dem euh, def ko li nga xam mooy donc défenseur mu jaar ca Milan tey mi ngi joué gagné na Ligue des Champions il a 38 ans mais aussi Kalidou Koulibaly de retour au niveau de l'entraînement fa la nga xamoo ci les Blues de Chelsea gis ngeen ko ni l'Europe est de retour Koulibaly mi waajal waajal week-end bi ak club pour jouer donc aujourd'hui l'Europe de la défense le capitaine de l'équipe nationale du euh, Sénégal gars yi laaj bi nag mooy kii kan la kii la kii gars yi hein? non Sénégal amoon na ay joueurs kii ba ma koy seetaan gars yi muy jouer ak équipe nationale ndeysaan mais après fraude sur l'âge moo taxoon ñu daal di woon ko euh, dindi ci liste équipe nationale petite catégorie il a il est passé par le Barça gars yi kii kan la pendant ce temps également Manchester City Liverpool ba légui incertitude autour de ki nga xam moy donc kii di Erling Braut Haaland ki nga xam nak moy donc euh, kii di euh, euh, Guardiola nee bu fekk Haaland mënul jouer ki nga moy Julián Alvarez moy nek titulaire ci sen jongante inshallah allah rabi contre Liverpool Liverpool bi nga xam nak nag di Thomas Tuchel nee ñun mosu ñu ndax waxtaan nañ bu jour bo xam dañ koy jëndé 100 millions mooy li mo wax dal moy que né instant ñun pare nañ ñi nga xalaat de won et aussi dina am ay changement yu am dina am ay joueurs yu ñuy jënd gars yi nag xel yi mi ngi dem ci ki nga xam moy donc Jude Bellingham nga xam ne nag actuellement ñii di waa Borussia Dortmund dañ cee bëgg lekk xaalis gu bëri bëri bëri bëri bëri euh, média espagnol yi nee Real moo du dépassé cent millions ñii nag di Liverpool aussi bëgg nañ booy bi def ko priorité au niveau du milieu de terrain parce que seen milieu terrain ñu bëri dañuy dem ñii di également Manchester City ñu ngi ci xool donc reste à donc voir fan la jëm Manchester City bi nga xam ne également Pep Guardiola mu ne bu ma déggee nit ku naan non man li ma def sama démb dootuma ko def et tout mu ne loolu mooy manque de motivation mu ne li nga def démb da nga ko war a fàtte li nga def tey gën la ñor sax li nga war a def ëllëg donc mu ngoog donc di war rek ne gars yi donc mi ngoog quoi c'est ça la motivation euh, ki nga xamné également nak moy donc ki di euh, donc l'ancien entraîneur donc de l'Espagne donc Luis Enrique mom na xam nga doon def ay live ci coupe du monde bi def ay live ak yu am ci lu tolok 30000 euros da ko daal di jël jébal ko association yoo xamné dañuy jappal ndaw yi comme moom ndeysaan doomam dafa wàccoon euh, liggéey doomu ndaw ki nga xamné nak moy donc Paul Scholes les légende du côté de Manchester United nee na ki nga xam mooy Jadon Sancho nee na actuellement booy dafa nekk manque de confiance maa ngi gis ñu ko jouer 10 mais poste du 10 pour man ailier la ñu war a joué loo ki nga xam mooy donc Jadon Sancho actuellement nag euh, ñii di waa Marseille te dañoo témboo un but partout hein, ils été tenu en échec et également hein, si dernier minute yi sax ah kii moom du saaxu moo dugg may leen penalty mais dañ leen naroon dóor donc Marseille actuellement daal kii actuellement et donc à l'arrêt comme on peut le dire Marseille est à l'arrêt Qui est William Saliba donc Michael Arteta nee Saliba actuellement en ngi parce que maintenant euh, pour l'instant rien n'est sûr avec lui donc nous les li ñu wax que nous donc est-ce qu'il il peut jouer, jouer ñu parce que cadre la défense ou équipe B, qui nga également cadre actuellement du côté du PSG, de moi Xavi Simons moi je tànn mu joueur du mois du côté donc de euh, l'Eurodivisie foofu noonu ca Hollande moom mi nga xam ne nag ñii di wa Paris Saint-Germain dañ ko bëgg daal dellu si 4 millions lañ ko jaay woon fi mu ne nii nag booy ñu ko évaluer à plus de dix millions d'euros ñu ngi wax 12 ñi daan 20 millions kii nag di Randal Kolo Muani moom it tey il a encore marqué joueur bi nga xam ne actuellement club yu bëri ñu ngi koy xëccoo donc Eintracht Francfort nag ñoom nee na ñu mën a waxoon dañu bëgg a xool ndax dañ koy téye ba 2024 pour yokk valeur marchande wala boog ku ko bëgg jënd ren yi il faut nga génn xaalis bay daal di koy teg ki nga xam ne nag également mooy Diadio di l'entraîneur de Casa Sport moo tax gars yi faites attention information ñu leen jox gars yi dañ ne woon moom dafa ne Aliou Cissé est coupable ci élimination U23 yi moom nee na musuma wax loolu donc gars yi moo tax parfois information boo ko jox nay wóor quoi gars yi dañuy njëkkante parfois di joxe une information wala di wax loo xam ne il faut vérifier une information doit être sourcée comme ni ko gars yi di waxee kii nag di Stéphane Badji de retour à Casa Sport 2009 ba 2012 la nekkoon Casa Sport ren jii nag euh, depuis daaw ba mu jeexalee club amul woon club il était sans club il est de retour au Casa Sport numéro 14 lay sol Stéphane Badji actuellement mi ngi am nag fanweeri at ak ñett 33 ans donc ki nga xam ne aujourd'hui hein, il a marqué le football bokkoon na ci équipe nationale du Sénégal aussi nekkoon ci premier lien naa yi nga xam ne Aliou Cissé ba mu woon na leen fa donc il est de retour et je pense que aussi exemple pour ñi nga xamné bu ñu jeexalee seen carrière Sénégalais mëna ñëw dëkk ci euh, dellu ci sen euh, club yi ñëw aussi jox leen doole jox leen visibilité euh, ki nga xamné ne également mooy actuellement hein qui dit Boulou Junior Sambou gars yi dañu wax ci moom lu mais mi ngi fa nga ci Maroc actuellement c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat marocain kii tamit nañ ko xoola ah, parce que il est excellent jaar na Casa aussi Yaraf de Dakar Pape Ousmane Sakho actuellement ni moom tey dafa rejouer ak Raja de Casablanca il est de retour il est en forme Pape Ousmane Sakho bi nga actuellement il veut revenir continuer ci dynamique bu mu pour yaakaar après Sénégal ñu waat ko parce que objectif am imposer au niveau de l'équipe nationale du Sénégal et ça pour man c'est assez important n'a que di Edouard Ndiol Koumoumi Dogore Mendy maa la ko wax Edouard Ndiol Koumoumi Dogore Mendy actuellement nag Chelsea sur la liste des départs parce que Chelsea gars yi ñom dañoo perte lu bëri ci xaliss presque ay plus de centaines et des centaines de millions lañu perte te rentrée de fonds ñi nga am 50 millions d'euros donc dañoo wara jaay joueurs yu bëri Edouard Ndiol ko mi doogoro mel nak xam nga né dafa am contrat bu 2025 mais moom gars yi dañ ko bëggoon prolonger mun leen il faut que ma ngeen fay ma lu tolloog li ngeen di fay Kepa parce que man Kepa duma moromam moroomam léegi nag gars yi ne comme que loolu la donc actuellement daal nañ ko jaay donc actuellement il est sur la liste de départ ñi da wax naan Chelsea la jëm Edouard Mendy amul chance il a il y a plutôt 90 de chance que du dem Chelsea parce que li ma la ko waxee woon Chelsea actuellement ñaari gardien ñoo fa nekk Neuer ak Sommer et que Edouard Mendy nee na fu muy dem moom day nekk titulaire loolu mooy la bonne et la claire information par rapport à ça gars yi c'était les informations que je voulais vous donner wooy leen di like wooy leen di abonné s'il vous plaît lien baa nga ci kaw dem leen vidéo yi ngén ngeen bës lien bi abonné ci li nga xam Baba Show mais aussi di certaines vidéo yi gars yi di parce que culture générale la ci walum sport dañuy wax ci règle sport wax ci histoire du Sénégal wax ci mag ñi réew mi wax ñoo xam gars yi musso len ko xam mais aussi comme on dit sujet la politique ak lépp lañ fay wax mais assez constructif et wolof lay doon wolof lay doon pour agrandir et aussi enrichir sur une culture générale gars yi woy leen di like woy leen di abonné lépp len jaxal ci walum sport histoire et tout dem len xol ko fofu jaa jeuf